Matin waaw na ngeen déglu RFM matin bon réveil sur RFM loolu wóor na wóor na wóor na wóor na na RFM matin RFM matin émission Billet au Sénégal RFM matin 7h42 mbokk di djegelu euh, njuumte ci euh, invité bi sunu gan c'est plutôt

Euh, science politique euh, lu sa xam-xam màcc la da nga jiite la ko yittewoo ca université noo gisee euh, fii réew mi toll jamono ji ci politique Sonko ne dafa bëgg a débat ak Amadou Ba naam xel tey na ci ba xam débat bi dina amam déet waaye itam wàllu démocratie ak liberté yi boo gisee lu ci mel nii la dal Bougane Gueye Dany ak melni toroxal gu melni ni eh, xassuna ci yef yek nañu waxé ne anam yam nek ci kasso Tamba bi loolu yëpp noo koy jàngate euh, Babacar euh, Fall maa ngi lay remercier donc di remercier wa RFM euh, aussi sen kilifa monsieur Youssou Ndour le ministre Youssou Ndour euh, ci invitation bi euh, li nga wax dafa am solo ndax té euh, Sénégal dañ ko mës a bàkk ci wàllu démocratie euh, mu nekk dëkk boo xam ne euh, ci Afrique dañ ko ràññee euh, ci jëf yi mu jëf ci li jëmale démocratie kanam am nañu ñetti alternance deux mille deux mille douze ak récemment deux mille vingt quatre donc mu nekk loo xam ne dañ ko war a téye sàmm ko. mais waruñu euh, delu si ginaaw euh, ñuñ nak ay chercheurs lañu euh, su ñuy analyser dañuy analyser objectivement ne ko nasaraan di waxe donc baña fété bor ndax té lolu moy science en tant que spécialiste donc en sciences politiques parce que nous, suñu euh, surtout moy analyser les faits les phénomènes politiques euh, li am Sénégal nag euh, walum démocratie nu muy doxé actuellement defe naa ñu ngi bëgg baay suñu loxo li tax ma wax ko alternance bi passé nous mu amé ay euh, privation de liberté maanaam ak euh, yelleefu doomu aadama moom la ñu doon xas ci régime bi fi nekkoon euh wanté ñuy gis euh, temps yi euh dafa doy war et puis képp ko xamné militant de droit de l'homme nga waru ko vraiment rafetlu. oui mais euh liñu ñu xaw moy cette cette démocratie mbuucaa mbouch ci dëkk bi ay do jaar fi ak fe lay jaar euh, réew mi du réewum lo lambe démocratie lo lambe cest dire comment on peut descendre aussi bas euh, yow bu ngeen ko analyser euh, ni nu mën a ak fi réew mi jaar waxuma la histoire Sénégal gep mi diggante 2021 ak 2024 ba passé falu mmh. li fi am yépp mmh. li ñu def bu gan Sonko doon ko bañ bi ñu ko convoquer tribunal ba jur fitna ci dëkk bi comment on peut se retrouver dans cette situation là aujourd'hui

Euh, c'est pas normal que bon ñi fi tay euh di def lo xamné ne dañ ko doon euh, ŋàññ demb lolu lolu du yoon ndaxte euh, li ñuy wax expression de liberté dafa am solo ci walu démocratie donc loolu moi agenda bi nga xamné mom le gouvernant actuel yi teg loolu moo moom la donc euh, am par exemple Bakel euh, c'est normal euh, que ay politique ak ay des non politiques des non politiques dem fa walu population ou Bakel donc defena lolu jarul ñuy privé ay liberté ay ay ay ay politique bon joxé nañu ay argument à xamné bon vraiment c'est pas c'est pas très très consistant je crois que le Sénégal doit quand même dépasser donc euh, cette étape. encore que Balama Baye Alimou, encore que ñu euh, président de nekkoon quelle est la loi dans ce pays qui dit président franchement. Euh, bon professeur oui moi j'ai moi j'ai beaucoup regardé j'ai cherché comme comme comme comme tant d'autres hein, mais <laughs> j'ai pas pas trouvé. voilà donc cette cette, cette étape, mais vraiment moi, ay qui ay amené xamné euh euh dañ bon sécurité amna donc sécurité euh, donc ar euh, président de la république euh, loolu am madame cortège présidentiel ça y yar donc n'y a pas de taxaw mais quand même né euh président mu ngi fi ken waru fa fait, tout ça donc d'autant plus que nous, beaucoup ñu sax li ñu doon dox. Mhm. professeur Abdourahmane Thiam lan yow selon yow euh, bi euh, six mois 7 mois très rapidement ñu duggaat ci ay pratiques ni nañ ñi xeyna euh, en tout cas évoluer dans le sens positif lan tout donc coup ñu c'est-à-dire que acteurs am problème institution yi wala lan c'est quoi bon li Euh, xam nga dafa am benn kii borom xam-xam bu tudd Alexis de Tocqueville mu bindoon euh, euh, benn téere bu mag ci wàllu démocratie en Amérique dafa waxoon ne nit su nekkul ci nguur mën na wax lu ko neex mais saa yu ko téye beneen réalité mu am defe naa loo loolu moo am actuellement ci suma gis-gis. donc euh, aussi hein, le pouvoir euh, bon euh, bon ça se prépare aussi hein. donc il faut am socialisation donc on ramener ne des femmes solo comme ça sur accès donc nga donc vraiment du am da nga ni amul préparation ils sont pas préparés ci sen parti alors qu'ils ont un parti def ça fait plus de 10 ans ñu ngi fi ci espace politique Ils yor un projet di pour la démocratie gis ko bon lolo c'est ça le ça mon nga am euh, parti politique euh, mais si euh, suñu jëlé exemple par exemple depuis Senghor Abdou Diouf par exemple suñu nous donnons nommé nit dañ ko doon mettre en situation dañ lay teg fenn par exemple di la observer di la observer pendant deux mën na nekk ñaari at bo ñe ñeent kii juróomi at sax ñu lay observer donc loolu daf lay préparer waaye ak soo àggee donc ci yenn position de pouvoir yi donc loolu dafa am solo donc euh, moo tax euh, parfois c'est difficile bon euh, on verra donc liñ ñu leen vraiment souhaité mooy affaire yi dox. Est-ce que euh, le parti euh, passé est un parti populiste Bon, souvent bon nous affaire populisme donc parce que populisme ça fait partie euh, euh objet d'étude nous ni situation politique mais soko waxé la saga populisme Est-ce que finalement de, professeur mm-hmm. Mmh. Euh, problème bi du justice Sénégal ak administration Sénégal parce mmh. que mmh. Euh, procureur yi rawatina euh, mel ni fu leen nguur joxoj rek loolu la ñuy def est-ce que amuñu problème mu justice ci dëkk bi parce que ñii liñ daan bañ ci jamono yi Macky Sall moom la ñuy utiliser justice Sénégal ngir noot seeni seeni adversaire est-ce que ça jarul yéen ngeen xalaat ci problème mu administration Sénégal impartialité bi mu war Sénégalais yëpp ak justice au Sénégal. bon disons que bon mën nañu euh, politique yi fi yi fi yëpp yëngatu yëpp ah donc dañuy poser problème boobu seen projet yi euh, ñoom ak ñeneen bi ñuy xëccoo élection présidentielle bi ku nekk yaa ngi wax ne euh, su ma jëlee pouvoir bi damay teg euh, une administration donc bo, xam ne. day day day neutre. Euh, justice euh, impartiale donc euh, yooyu yëpp dañ koy wax bon mais li ñu dans le wax daal mooy Sénégal ken mënul wax né amul administration parce que Sénégal quand même ci li naté, manam maanaam état administration yu wax bureaucratie. na naxee mbaay naxee politiciens yi ngay wax légui parce que Ousmane Sonko kérok Dakar Arena. Mhm. wax Euh, feebar gi bi ñëwoon dafa feebar ba tëdd principal. du doon sóob ngir mën a sàkk ay pexe politique. Euh, tëdd googu mu tëdd foofu booba nit ñaa ngi manifester am na ñu seen bakkan rot yooyu. est-ce que ça dans une démocratie comment euh, askan nan la mën a toogee ñu koy naxee noonu te ki leen nax taxaw ne dama doon sóob ñi ñi génn manifester di xataraayu. bon loolu mooy lii Mamadou Ali mu wax sànq euh, maanaam populisme populisme xam nga suñ koy wax euh, souvent euh, dafa am ay nuñ koy naté manam dafa am liñu ñuy wax qui l'anti-système discours bi tout, tout le temps dañuy ŋàññ système bi système bi système bi ou bien manipulation ou bien euh liñu wax aussi violence symbolique manam si sen waxine toujours da ngay gis affaire violence buy exprimer wu donc euh, loolu mooy populisme te loolu soo ko xoolee bon loolu aussi euh, bokk na ci seen euh, seen logique suñu waxante dëgg aussi il faut pas que soo nekkee ci yenn position de pouvoir yi ngay tenir en un tel discours parce que sooy wax ay affaire justice alors que yow waro àtte donc loolu. c'est incroyable dafa doy waar ce que Sonko a fait mooy joxoñ ay nit ni ay sàcc lañ. yëkkati ay boyam ne len ñi sàcc ñu ñun dañu set. loolu nak ça ne devrait pas être parce que nuñ ko euh, ak nu mu monti démé dafa am luñu wax sax. Euh, principe incroyable ce euh, pays principe d'innocence présomption d'innocence loolu sax dafa am. donc nga respecter manam ak ak yëlefu doomu adama donc mono ñëw rek accuser nit ki comme ça alors que justice justice mo ngi fi wara até wara joxe jugement. lan yow selon yow nit ñi dañu am difficulté peut-être euh, gis le principe de la réalité ñu gis bien affaire ba vous bagn ko wala ñu né non du lolu genre euh, xam nga la la expliquer c'est-à-dire que c'est euh, un rapport avec réalité bi rapport le de croyance en réalité rationalité bi day des moo finalement xeyna nit ñi même. <coughs> Mm-hmm excusez-moi même si ñu leen euh, joxañee benn affaire ñu ne am ils ont du mal à croire à cela ñu ne non non non du lolo, euh, ay wax la loo xamante ni euh, nu mu du etc. c'est c'est quoi lan l'un xew lan qui est suñu jeunesse souvent. bon disons que loolu euh, maanaam comportement comportement à culture politique ou surtout génie de faire changer complètement Lolo, loolu lu koy indi mooy maanaam discours discours euh, bi discours euh, populiste donc c'est la manipulation bo xamné euh, c'est facile hein, pour les hommes politiques tu réunis tu réunis tous les blessés de la vie là nous top la fournir da régler <laughs> problème ça aussi hein c'est ça. <laughs> les blessés de la vie. <laughs> c'est dommage c'est dommage parce que de il faudrait aussi une certaine citoyenneté pour ramener. Euh, nit yi il faut que ñu gën yewu euh, di analyser aussi di homme politique yi di wax euh defena lolu moy rationalité bi nga wax euh, donc lolu dafa am solo. ci ci lolu ba légui peut-être Babacar une question. Mhm, moi euh, li ñu xewle sécurité parce que on ne parle jamais des vraies questions dans ce pays débat public Sénégal euh, franchement euh, pas de débat économique ni de débat scientifique adversaire c'est dommage c'est comme ça depuis depuis que ce pays là s'appelle Sénégal Légui, sécurité lu am solo la gis nañ li wër Sénégal gépp ni mu demee réew mi tam mi ngi def kem kàttanam ba yooyee xew foofu du yegg si fii euh, fan la Sénégal war a wéy di di taxaw ndax am na ñu ni euh, c'est inévitable bu ñu deful ndànk dina fi mës a am ak yooyu est-ce que le Sénégal est aussi imperméable que ça wala nu ñu war a def. bon sa question bi am na solo euh, ndaxte li li li xew. Euh, Bakel dafa bok ci li ñuy wax euh, sécurité ndaxte sécurité euh, dafa yaatu ndaxte aduna, aduna bi yépp kenn mënul ne affaire au terrorisme par exemple affaire u extrémisme violent ni ñu ko waxee ay trafic dans toutes ses formes lolo, euh, mënu la dal depuis euh, bi euh, guerre froide bi jeexee année 1990 aduna bi ci bopam mo Le 11 septembre bi encore loolu tax nguur yi nak ci deku aduna bi yépp baye xel ci walum sécurité euh, Sénégal ci bopam fi Afrique suñu euh sous région bi dafa nek ci manam ci ben ceinture de tension bo xamné euh autorité dañ ci wara a xel bon nam ñu ngi ñu ngi def li ñu mën ci côté bobu mais ñuñ en tant que chercheur euh, suñu wareef moy ñuy xalat parce que ñuñ amuñu pouvoir de décision ñuñ dañuy xalaat wax nit ñi ki autorité ni lii moo am. est-ce que extrémisme violent bi euh, mun na am Sénégal fii. bon euh, disons que amul benn dëkk boo xam ne ngi à l'abri Ces disposition rek nga mën a jël waaw disposition bon pouvoir yi euh, quand même euh, depuis ancien ancien régime bi ah bi fi nekkoon donc euh, am nañu ay dispositions yu bari yoo xam ne. Euh, jël nañ ko ci wàllu coopération aussi parce que benn dëkk euh, mënul euh, donc xeex wàllu terrorisme par exemple insécurité donc il faut que mu am ay lënkaloo yoo xam ne dëkk yi dañ koy def aussi sécurité du waruñu ko nat seulement ci wàllum guerre affaire yooyu ndaxte sécurité ni ma ko waxee sànq dafa yaatu am na sécurité numérique. Mhm. Euh, Mali conflit bi day déplacé wu ouest Mali. Mhm. ça veut dire vers l'est du Sénégal. Mhm. c'est une situation à surveiller peut-être. Euh, attention et peut-être inondation yi mën nañu rendre vulnérable je ne sais pas je dis n'importe quoi peut-être. non c'est pertinent on verra en tout <laughs> cas merci professeur Abdourahmane Thiam. département sciences politiques faculté.